jaajëfal bu baax te di leen nuyu yéen internet TV yéen ñuy topp chaque jour nee naa leen sama équipe Ndeye Mbacke Diop Mansour Fa chaque jour dañuy dem champion daal toog waxtaan ak moom tey nag ndogu ak dafa dalal beneen champion beneen champion na bu ñu ko waxee ndaanaan la kenn tudd làmb tudd benn mbër ñaari mbër te doo ko tudd kooku mooy kan l' enfant de Pikine l' enfant kooku mooy Boy Niang numéro 2 borom curuxu curuxu gi ak waa Gallema ah. Boy Niang 2 lañ dem <laughs> borom borom kaas fonde suur kër ñaa Niang numéro 2 asalaamaaleykum nañuy nuyoo ah mu ngi noonu ah champion bi borom bés bu neex bi xale bi nga xam ne bu bàqoo mu neex su bëree mu neex ah, anañu d'accord euh, fils de Dégol l'enfant de Pikine yaakaaru Pikine baa ngi noonu xale bi nga xamante ne nii moo am fit daal di jël ñaari avance borom ñaari galon yi mu ngi noon de ndogu ak Mansour Fall ci caméraman bi lu mu caméra wu lu ne baaxul <laughs> plan yëpp moo koy jël angle yëpp moo koy jël sene ndogu avec Boy ñaar numéro de Mansour da ngay daal jël lépp di daal di yéeg xool champiyon bi man duñu ay mbër ay reporter lañ buñ demee ndànk-ndànk lañuy def ba daal di yegg fañ jëm salaamaaleykum fu ñu commencé. nee na Tapha benn foyukaay la Tapha Tine le du Baol Tapha Tine le du Baol <coughs> laqatu laqatu génn ca tartine ba la. waaw <coughs> ca tartine ba fay naa la. gis nga si bisu Boy Niang numéro 2 du nekk lu ñu bett ne xam na sa moom lan moo waral bis. mu nek luy lan bet ah. <laughs> nekk lu bett kenn. Boy Niang ak Malo moom mi ngi mel ni mi ngi mel ni apprenti ak chauffeur moom waaw ah, loolu la ñu ñëw ndogg si daal. ñu jëm ci bis ñaari bis sax laay wax waaye beneen baa ngi ñëw lan ngeen koy waajal ci wàllu chorégraphe. ah nii ñu ngi ndogg dañuy ndogg dañoo ndogg si. waajal ci wàllu chorégraphe yi naa Boy Niang lu mu riit rek yaa ko loolu moom kenn waxtu loolu moo tax ñu ngi waajal ànd ak ñëpp yaa ma gën a xam boo gisee nii li mu demee da war a xam ne ñu ngi waajal baax a baax ci côté bépp nag waaw di ñaan yàlla dama lay di ñaari combat yi mu jëm yi. ma ñëw kaala loolu dafa leer de. jàmm ak salaam rek moom sama gaañ la quoi sama xarit la booy bu la quoi waaw moo mën a nekk waaw. loo koy wax. ah mu góorgóorlu rek ñaari combat yi moom dara. waaw ñun ay champion yàgg na ñoo bëre quoi waaw ñun bëre moo suñu métier quoi du dara waaw. non dafa garaaw dafa rek bii du garaawul ay. Mansour kii nee na combat bi loolu dara da koo jaay jël oyofal ko <laughs> champion la kii moom dëgg nga présenté ah Zambala nuyu nañ la. oui ñu lay fay soxna si. dafa koor ngi ci kawam nag. yaa ngi woor. maa ngi woor kay. yaa ngi entraîné. maa maa ngi woor. relation ak Boy Niang te mu organisé ndox ñu gis suñu relation ay frère lañu maax moom dépassé nañu sax ay kii maax moom on est des parce que du tey yàgg na hmm. lu mu woote dañuy ñëw dañuy teew waaw. ñaari combat lan nga ko ciy wax. waaw liggéey rek ñun ñu ngi nekkoon di liggéey bu ñu amee combat bu ñu amul combat dañuy liggéey kon combat yi bu ñëwee tamit moo loolu dañuy ànd moom rek continuer suñu préparation waaw di ñaan suñu borom defal ñu ndam. mu ngi noonu ñu ngi ñaan seen borom que duñ wax ci moom tamit. maa ñëw maa ñëw. Kalmu Ndour naa la. maa lay fay maa lay. Grand Mbagnick. waaw Kalmu la Kalmu du Grand Mbagnick Kalmu la. Grand Mbagnick nuyu naa la. waaw maa lay fay ne Maguette. noo dundee bis bi. waaw kontaan rek xam ne suñu grand suñu doomu ndey sama jumeau moo xewle tey kon war a bàyyi lépp teew. waaw pour jàppale ko si bés bi tamit waaw. moom ñaari combat. géant du Baol ak Balla Gaye numéro 2 le BG de Guédiawaye lan nga ciy wax. non loolu lu bees si ñun bi si Balla Gaye moom boobu dafa ñor ba pare li kay li si tafaatin la ñuy toppatoo rek moom boobu ñor na ba pare quoi. waaye le fait que Boy Niang numéro ñaari grand combat nga nekk ci ginnaaw la nga koy conseillé. non Boy grand combat la ponkal la champion bu mag la kon loolu jomb ko te dañu ñaan sax instant yi bu ñu amoon troisième non combat boobu moom pare na ñu koy pare bu baax ak suñuy mbokk ak samay fans yi yëpp gaa yëpp ñu ngi koy waaj yi ñaan yàlla rek bés ba yàlla may ñu ndam bu seedu gu incha allah. loo ko indi. bi rek comme ni ma leen waxoon rek prib dib bi rek. bu mu ko faatee bu ko faatee prib dib. prib dib la bu mu ko faatee. man dañuy jël kii. waaw man moo ma ñor quoi. combat bee sax déwén la jëm pareeguñ ko man maay booy séeréer bu école élite booy ñaa. Euh, Tapha Tine koy xamal na ko. ba mu dalee am combat ba léegi moo door am combat am na combat nag te Pikine yëpp ñu ngi ci ginnaaw Boy duñ ko may dara bëgguñu mu may ñu dara dégg naa mu naan euh, benn affaire nu mu koy waxee di sax euh, mu am na benn garab buñ naan euh, saakaande saakaande ñun séeréer sépp xam nañ ko ñun ay séeréer lañu Fatick lañu dëgg. mu ngi noonu Boy Niang numéro 2 la fils de borom curuxu curuxu borom kopp fondey <laughs> Calme Ndour te da ngaa soppeeku nag sëriñ ah <laughs> nuyu nañ la. bëgg naa la bu baax nagamu. noo def naka koor gi. waaw koor gaa nii rek déwénati bàllu ñax yàlla yàlla boole jégal ñu fekk ay déwén yu bari. kanam gi leer na de nooy dundee koor gi. <laughs> koor gi waaw comme ni ko gaa yi rek moom xam nga di woor xam nga di jaamu yàlla luñ mën ci. ci ci ci weeru koor gi ñu def ko kuñ mën a dimbali ñu dimbali te yàlla tax kuñ mën a bokkal ak li ñu yor ñu bokk ak li ñu yor loolu la rek incha allah. mbaru suuri bi ñëw na. waaw noonu la demee daal jàmm man moom bu ji. ñëpp a ngi fas seen kanam. non moom xam nga man nag ragaluma xiif nag. waa gars yi dañ koy wax sax même bu dul ko kii nii ko combat nii ma ragaluma xiif. soo ma lekk damay lekk ba suur mais bu ma xiifee tamit garaaw damay xaar rek waaw mooy loolu. man dañ fa teg suñu loxo rek ba na <laughs> xamante ni ñun petit sax nekk ak moom day mel ne la gën a jox cër ni mag ñi chaque jour dañoo écrit dañu may doole xam nga di ko ñaanal lim dëbtal yàlla may ko si ndam si barke borom rek dafa rafet dajale ay nit yu woor ba ngoon jot nga jox ñu lekk tuwaay boobu li ko yàlla fay rek yàlla ko yàlla jagleel mu daan Balla daan Tapha Tine ku ne dina ñam kaasu foone bi moom moo ngi suuf di baax 19 heures ak mu teg heure ndogu ñu ne koor Boy Niang numéro 2 fekk ay ménagère am ay papam ay conseil ñoo xam ne bu ñu nee Boy Niang waaw boo ñaa waaw lay wax suñ ne boo Niang dé Boy Niang déet lay wax sampaa papa dama leen nuyu rek. waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di ziar ñëpp di ñaa di baalu ñëpp ak si koor gi di baal ñëpp di ñaan koor gi ñu koor yëpp yal na ko yàlla nangu si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi barki Ibrahima barki Makka barki Kaaba di leen ñaanal yéen waa tere yi leneen wut rek yàlla ngeen ko am Pape Thialis tamit lu muy sumbu yàlla na sotti si barki yonent bi ak bépp promoteur si kàddu gi. si Boy Niang numéro mu jël ñaari avance ñaari combat lan nga ko ciy wax. waaw loolu sant yàlla sant yàlla xam nga man man déggool cinq combats la daan si benn semaine dama daan bëre samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi laay tëb samedi ba samedi damay bëriwaat loolu miis naa ko waaw ah, te loolu laa ko miisaloon nee naa ko yéen bëriwu leen parce que benn combat deux mois trois mois ñun bu ñu ko amoon dañuy fecc. combat bi mu jëm contre Tapha Tine boo ko doon conseil loo koy conseil waaw loolu nag dañ koy duñ ko wax fii si tere mais ñu ngi ñu ni ñu am jàmm suñu ñaari doom lañu nañu bëre def fair play le waaye ñu ngi ñaan yàlla si kàttanu suñu borom yàlla nañu yàlla may ndam si barke Abdou Khadir Jeylaani si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf moom père papa jee ko wax de. ndogu ak Boy Niang numéro 2 nee naa leen buñ nee nit baax na dangay laajte ndax mboq yi ñoo ko wax te buñ nee mboq. ndey da cee dëgër tax bu koy nàmpal da cee xool dañuy daal di nuyu suñu yaay boobu rek mu wax ñu dara ci li nga mooy doomam di Boy Niang numéro 2 sama yaay nuyu naa la. maa ngi leen di fay. naka koor gi. koor gi a ngi nii rek ñu yàlla bu baax a baax a baax. ñu ngi sant yàlla. sant yàlla rek di wax alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sang sang di rafetlu nag ñëw bi ngeen fi ñëw lool di leen sant lool di leen gërëm di ñaan yàlla li leen tax a jóg ba ñëw ba fii ci kàttanu yàlla ak yonent bi yàlla na ngeen ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def jàmm ak wér ak wér la ñu fekkee lépp. yaay boo nekk yaayu mbër méttiwul pression bi nga am suy bëri noo koy dundee. Ah, xanaa rekk yàgg ci lool nag waa ci papaam la woon ba ci moom mi ba ci ay nijaayam yàgg ci lool. lool rek la ma nekk ci boobu ba léegi nag di leen ñaanal yàlla rek metti na waaye nag lu la yàlla teg moom danga koy tegoo rek sant yàlla bu wér sant yàlla di ñaan yàlla rek ba nu yegg ci ak jàmm dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ko nangu sedd guy nag ndax doom joo xam ne la ah moom lu mu dugg rek dina ci génn ndax fonk ay waajuram bëgg ay waajuram yiir leen yërëm leen lu mu dugg rek da ciy génn bisimilah alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla na ko yàlla def ci barke weeru koor bi ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla jërë ngeen jëf. jërëjëf yaay boobu la ñaanal gudd fan gu bëree bëri bëri nga yàgg suñu kanam ah. salaamaaleykum maa nuyu naa la. maaleykum salaam fay naa la sama doom. li mën a wax ci Boy Niang numéro 2. ah Boy soo ma ci laajee dinaa ci mën a wax ndax tubaar fakkaar la suñu doom la doom ju yaru doom ju baax doom ju bëgg yaayam doom ju am jom doom ju bëgg mbokkam. tubaar fakal la moo waral suñu jataay bi ñu di ko ñaanal nag lii mu sémb yàlla na ko eggale ci ndam ci barke Seydina Muhammad ñu ngi koy ñaanal ndax xale boo xam ne tubaar fakal la macha allah am jom am fulla am fit am am personnalité tubaar fakal la macha allah ñoo ngi koy ñaanal ci barke maamam Cheikh Yirminu Mbaan lu mu sombi yàlla na ko naan te suñ ko naanee yàlla na muy ndam rek ci barke yonent bi yendoo na ay moroomam dooy ndeyam yendooy bàjjanam ndoguli tubarkalla lépp a ngi ni gaañ ñi ngi ñaan daal lii yàlla bu doon suñu mujj koor ci barke Seydina Muhammad kontaan nañ ci yéen jërë ngeen jëf. toog li olof naan yoroo baax boo yoroo maj sàngal yi su guré njaay boo yoree di ko yaa yëg xale bu yoroo baax moo tax la yéen a baax da ngeen a neutre lu tax drapeau ay speaking ngeen yor boo nekkee drapeau AS Pikine ñëpp nga war a jàppale ci fair play yéen ay gor ngeen lii def Garmé koy def ñëw fekk si Boy Niang ak ay mbokkam bala ko dumaane mbaay yirim may sa mi ci job Cheikh Yirim ndumaanay sa ma daawur ngéwal alaaj sàmm ndu ko maanay kii baayam lanu sulu ci tàkkusaan goo xam ne mat nay tàkkusaan baayam ñëw sulli baayam solal ko manto ba réew ma tàkk naan ee eh, bu nu sullee si xirim mbaadu mbaadu nëpp mbaadu yàqu waaye du mu ne ko yëlëb gis xetu parfum bay kii mu mar suuf si si jëba solal ko manto ba ne sama baay ma waxoon lii kii di yàgg wayaan lu mu lekk mu rees ndayam ji yow bu la neexoon bañ a bëre bu la neexoon toog waaye boo gisee waa pikin ñëpp jug les amis de Pathé président fan si club Pikine booy toog nii boo yaru woon duñ ko def Pikine nag sa ginnaaw dëgg la ma ne li nga engagé Pikine nag sa ginnaaw te Pikine daa Kër Masar a ngi ci Niaga a ngi ci Parcelles ci Malika ci Guédiawaye ci kon say xaritu yaay bu nu ñëwee dañu leen di yi ñu wax ci bis waaw géwél bu civilisé wax nga dëgg nag man moom yaayam romb naa xaritam. boo damaa romb xaritam laa wax ñaari maam yu bokk ndey ak baay du xarit. moom laa wax booy ñaama ni ko li la xettal ci bada mii. Hmm. démb la ca maam yi. seen ñaari maam a bokk ndey ak du buru déedéet dama ko ni li nga engagé. ci kàttanu yàlla mbaaxam ci barke weeru koor wii. maa ngi lay ñaanal segam maay sa tuurum ndey li nga song yàlla na ko daan ci barke Cheikh na Cheikh Samb yaa ñaanal sa bopp hmm. yaroo baax yaa fonk sa ndey hmm. réglé nag cëpp-cëppi woo kenn gisuloo fenn bajantu woo bala ngaa sa raar waaw waaw mais yaay mu ne naa moo ne ko li ma am lépp laa jël jënd kër defar ko dugal la ci dootoo luwe eh yaa ngi eh, eh, eh, booy ñaam waaw yaay champion waxal ba kenn bu yoroon milliard léegi ndeyam la koy woo teg ko ci loxoom ni ko dencal ma ko bu bëggee ma ci tàngal sax dikk ni ko yaay tàngal laa bëgg ma ci indi ñaar fukk ma jëndi tàngal hmm. loolu amatul amatul de léegi xale bu xasee yor cëpp cëpp rek lay def waaw dootu am kilifa yàlla xam sax waaye si xarit bii nga àndal muy Badara Mbeng yàlla na leen yàlla bàyyi yéen ñaar moom it mi ci li ma bëgg rek loo dafa attaay bàyyi baaraamam kabb ndax man déggal ma yërëm ma waaw su ma doon mandi moom laa ko yónni ndax daf maa yiir malaanum sutura ma di leen ñaanal nag booy ñaa li ma la wax léegi rek bu la gaynde songee bul daw du la lekk gaynde du la fàdd alaay <laughs> sàmm ndukumaanay sa mani ni ko alaaji Sàmba Ndukumaane jur aane mii hmm. mu jur la te ca maam sët bee koy jël maa bu ragal dara yaa ñaanal sa bopp fasuy tukkee la gën a xam yàlla mbaaxam laa ni maa ngi lay ñaanal du ma dogu de loo xamante ni lii rekk loo yóotu te jotoo ci saw fita ko xañ déggu leen ma de lu mu yóotu te yóotu te fitam ma ko ko xañ. xaar ku dégg séeréer laa ko ñu laa lu la sa fit may jël ko xëccoo ko danga koy gañe man maa la ko wax ndax say ndeyay wax ak man bis bu ne te dafa kontaan ci yow te ñaanu day du fanaan. bu yendoon du fanaan. laaw la cat macha laaw la cat yal na la yàlla lafal cat. ñu dugg ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina yàlla may nu ndam nii nu fi toogee nii ndogu nu del si waat fi waaw yàlla mën na sabar yi rëkk bu boobaa ñu xam ni cim ah. sa jaamum day bi am na lu mu man suma rakk nekk rakk ju ma jox cër ma nekk Kër Massar nekk maire Kër Massar amul lépp lu muy def suba ba ngoon woowuma woowu nan laay def grand nangam ak sàngam nangam ak sàngam wax dëgg yàlla man tamit ma koy conseil di ko xelal di ko ñaanal lii ñu dëgmal nii yàlla ñu ci yàlla may ndam làmb ji ñu dégmal nii li may wax rek chaque jour rek tey jii nii li ñu bëgg wax sax mënuñu ko wax fii ndax dafa am maire yu fi taxaw am na ñu fi nekk ñamante tey mënuñoo wax mais combat yi ñuy dégmal muy combat ak Balla muy combat ak euh, Tapha Tine euh, am na ñoom ne bëgg nañ ko wax mais mënuñu ko wax fii mais am na ci mag ñi nga xamante nii am na ci magu Pikine ñi nga xamante nii defuñu dara lu wër di toppee buñ bëggee jàmm nañ maanu ci combat bi ndaxte suñuy papa dafa am luñ leen jiwoon ñoom suñuy papa dafa am lu luñ leen jiwoon fii ci Pikine De ak Mansour Diop dañu am ñeewoon dañ leen jàppoon am ñu leen jiwoon ñooñu seen deret waru leen may tey jii Boy Niang di kenn ñiy dem di lang ci ginnaaw kooku di xeex Boy Niang wallahi combat bi amul lum ñu yaralu ñaari combat yi nii te gëm naa ne incha allahu yi ci kàttanu yàlla dina ci am ndam te bi soobee yàlla ci kàttanu yàlla dina ci am ndam bi soobee yàlla jërëjëf Mansour nee naa leen ndogu bi te dafa ala dawme dañ koy nuyu rek Abdou Aziz Niang géwélu booy Niang <laughs> nuyu naa la. Abdou Aziz Niang géwél bu Sulise. yaa ngi ñëw Pikine seet si seetu Cheikh Yirim Dumbandi bala ko dumaane mbaay Yirim may sakari mi ci njóob eey fii mi toll ku ne xam na Pikine ni ko fonke ak fi mu teg Pikine tey fans club yi ñëw nanu mbokk yi ñëw nanu supporters yi ñëw nanu tey liñ fi nar fekk les amis des pâtés Pikine waa piir yi ñëw nañu ah tey loo fi mas a fekk nga fi fekk tey boo duggee ci biir première fan si club baa ngi fi toog ñi nga xam ne moom moom petit ba grand sunu baay déggal maa ngi ko gis sànq nga koy jël baay bu mat baay bu mu la jàppale doom waaye nag boo duggee ci biir gis waa écrit bi doxal ñëw gaa yaa ngi. Mansour dañuy daagoro daal dugg si biir. wala kon du maa ne mbaa yi nii mooy sa xarit mi ci jóg bu ñii laa mook baayam la woon démb ñii nga gis nii ñu toog fan si club baa ngi nii bëgg ko fonk ko di jël seen dërëm seen ñaar dërëm di luyee seen kaar di jàppale booy ñaa xale yaa ngi nii waa ginnaaw raay xoolal nday ndeysaan xale ba moo ngi mel na ku jóge jidda landing xool sama caméraman ah xoolal landing kersa ga waaye nag boo jógee foofu yaa ngi jëm ci booy yi nga xam ne les amis départé booy pikinois yaa ngi nii xale yi nga xam ni du nu gaz du nu tuux fu nu toll ci social la ñuy dox moo tax la du nu ngaaka les amis de Pathé ñii nga gis mbër mu fi baax tey Pikine jàppale nan la mbër yépp la jàppale ñu doon seeni xarit ndax nag ndax Pikine dafa am lu ko seex bala ko du maane mbaa yirim may sa xarit bi ci jopp surtout Cheikh Yirim Dumbaan bi lay waxal sudul woon ak maam yi ba xëy da sudul woon ak maam bur yàlla du amal jaam ñi ñu ñëw tuuti mi ngi ñëw yàgg bàyyiwul jaam loolu muy wax noonu dafa xam ne surtout Cheikh Yirim Dumbaan bi la ñuy waxal bala ko demandé mbaa yirim may sa xarit mi ci job yéen a bokk maam les amis départé ngi nii xale yi nga xam ne kee mooy président supporter AS Pikine moo taala dunu ngaaka buñ ko présenté présenté président parté rek présenté jeex na ñu préparé nag làmb ji bëgg ci jëm ak fair play Eumeu Sène mooy seen mag Ama Baldé mooy frère am waaye nag surtout Cheikh Yérim Ndoumane bi combat bi koo ñor tay ñu def spécial ndogu ngeen ñëw den dagaay mbokk ma bëgg nga dem ci président supporter AS Pikine jàkkaarloog moom bu defee ci kanam maa ngi ñëw. ñi nga xam te ne mooy Boy Niang numéro 2 nuyu naa la. non président supporter AS Pikine. tur bi naka la. président kii bi Mortala waaw. fekk la fii kër Boy Niang numéro 2 nga ñu mën a wax ci moom. waaw ñun moom boo ñu fekkee fii nii fekk nga fu ñu war a fekk parce que dañu nekk ay jeunes yoo xamante ne dañu nekk Pikine te buñ naan comme tey buñ ne président comité supporter mooy maanaam ci ci football la mais sport ci li Boy Niang di yëngu ñun ñëpp comme niñ koy waxee dañuy bokk boole benn bànqaas rek nekk benn tey jii nii fierté ñu ñëw toog fii nii ci li nga xamante ne dafa invité Pikinois yi fii nii ndogu këram ñu ñu lu xalaat bi bu baax a baax. di ko wax comme ni ñu koy waxee rek yàlla na yàlla def ci li nga xamante ni la sumb muy combat ñaari combat mi am bi ci njëkk mooy bi nga xamante ni la war a dajeeg Tapha Tine bu ci topp mooy bi nga xam ne mooy am année prochaine moom ak Balla Gaye ñu ko ciy ñaanal ñaari combat yëpp mu am ci ndam bu baax a baax di wax Pikine waaye comme ni ñu koy waxee c'est lii mooy Pikine Pikine comme ni ñu koy waxee comme ni ñu koy waxee saa su ne rek Pikine lii mooy Pikine Pikine ñëpp amuñu sens interdit fenn bu ñu neexee dugg kër Boy Niang bu ñu neexee dugg kër Ama bu ñu neexee dugg kër Eumeu Sène te lii mooy doole Pikine benn grand dañuy waxtaan mu ne ma mu ne ma mu ne ma Pikine suñ boo suñ àndee nekk benn bëgguma mais ba muy wax baat boobu mooy lii ñun suñu àndee nekk benn parce que gars yi nga xam ne dëgguñu pikin lool moo leen arrangé ñun ñu dispersé wu ñiy jaar ni ñiy jaar nii mais suñu nekkee bloc rek yàlla daf ñu yombalal suñuy bis comme ni ñu koy waxee Boy Niang mi nga xam ne dafa am combat tey jii nii am ci tafaatin yàlla ko ci yàlla defal ndam ci beneen bi nga xam ne moo ngi ci war a dajeeg Balla Gaye yàlla na ko ci yàlla defal ndam Ama mi nga xam ne tamit xaritam la tamit combat bi mu jëm muy roi des arènes na ko ci yàlla defal ndam Eumeu Sène mi nga xam ne mooy seen mag na ñëw recadrer xale yi jàppale leen parce que affaire yi ñoom war nañ mën sax di nekk di contact di def lépp parce que loolu mooy doole pikinois ñi nekk ci diaspora beeg yëpp loolu la ñuy jooy kon yàlla na yàlla matal ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. mën a wax ci Boy Niang numéro 2. waaw avant tout ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di leen euh, ñaanal jàmm ci koor gi di leen baalu àq di leen baalu wax leen ñaan lépp luñ ci ñaan yàlla def ci jàmm donc ki ñu laaj moom ku ñuy sawar a wax la parce que suñu frère la depuis avant làmb ba léegi te ñu ngi ànd musul ñaaw ni mu meloon démb ak barki démb noonu la mel ba léegi donc lépp loo xam ne tamit warloo nañ ko suñu diggante ak moom. ñu ngi koy àndandoo ak moom mu nekk ànd bu rafet àndu nawle ñu ànd ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm ba lépp loo xam ne sumb na ko suñu borom def ci ndam bu baax a baax. nga nekk président supporter yi ñu gis li xew ci làmb barki Demba Ndiaye supporter yoo xam ne yi loolu bañ leen a waaw boo xoolee ñun loolu yaakaar naa ne yàgg nañ ci parce que boo xoolee bi ñuy bëree dem Diop booy ñaa Garga Mbossé ñun ñoo njëkk a Euh, bande bi nga xam ne dañ ko doon def ci diggante supporters yi pour bañ violence ci suñu combat lañ ko njëkk a dindee parce que ñun ñoo xeexoon violence bi nga xam ne moom moo doon am dem seeti fans club Garga Mbossé waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ba biñ ñëwee ci combat boobu ci la bande bi ñu doon def ci diggante bi dañ kon donc liggéey la bu ñu fekkoon mais dañuy gën a yokk rek di ñaax suñu mbokk yi nga wax leen ne li nga xam ne ñun ñoo ko moom waruñu ko yàq parce que buñ ko yàqee après ñun ñoo ciy toppaat di daw rek parce ay at mun naa ni peut-être mun ni topp nañ ci siècle te amuñu ko donc bu ñu fexee ba am ko nañ def tout ba préserver ko rek moom moo gën a. Uh-huh. rafet na dégg nga ko. moo doon pare naa ñu ngi lay fay baax. fekk la fii ci ndogu booy ñaan nekk lu ñu bett naka ngeen seen combat. ah non ñu koy pare ñu koy pare ñu ngi koy pare jàmm ñu koy pare pare weeru koor waaw. bu ndogoo ba pare après dem entraînement. ngeen am Tapha Tine bi genre bool mu nekk mbër bu coriace bu am doole naka ngeen koy waajalee techniquement. waajul waaj bu coriace ak waaj bu am doole lañ koy <laughs> lañ koy waajal. looy wax Tapha Tine. ko bu mu def dara ñu ñooy def lépp. waaw parce que ñëpp nee na ñun ñoo am combat moo tax ñun ñooy def lépp ñooy xeex ñooy bëre ñooy daan incha allah. yow yaakaar naa Tapha Tine Boy Niang na taxaw xeex moom. ñooy xeex ñooy bëre ñooy daan incha allah. ban le message ngay lancé supporter yi. ñu ñëw dox dem la tudd Boy Niang dox dem daan dox ndànk. man de kontaan ñoo far yow ñoo far. leen jaajëfal bu baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV nee naa leen saa su ne man ak sama caméraman dañuy daal di dugg dem kër champion bu ne toog waxtaan ak moom tey nag ki ñu dalal daanaan la doo ko tudd ci ñaari mbër wala ñetti mbër te doo tudd ki nga xam ne mooy Boy Niang numéro 2 fils de Dégol doomu Pikine borom curuxu curuxu borom bu jeexee rek jeex na nga xam ne ni mooy ay kopp fondem curu fondem sax laa wax di tànk di joxe Boy Niang 2 maa bu baax bi ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ay ñaari waajur mhm. ngi nuyu waa waa ko Cheikh na wul du maam it yëpp di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di leen ziar bu baax a baax di sant ñëpp di bëggee ñëpp incha allah. di nuyu ñëpp tamit di baalu ak ñëpp ci koor gi. di wax déwénati baal la ñu ak yar nañu suñu borom boole jégal ñu fekk ay déwén yu bari ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci Leewtoo TV. mu ngi noonu boo ñëwaat numéro de la ginnaaw ba ñu la nuyoo la jaajafal bu baax li nga xam ne yaa ngi ci koor naka la ñuy koor gi. waaw koor comme rek. ñun moom am am dañoo am habitude ñu yar ñu ci loo xamante ni même bu ñu nekkee mbër lu ñu mënti doon. Mhm. suñu borom lu moom la dañ ko ko war a jox. Mhm. même bu dul koor sax dañuy julli teg ko ci yoon xam nga. dañu seetal suñu borom ñu koy def teg ko ci yoon daal parce que ñun ci famille yooyu lañ judd. Mhm. dañ juddu famille boo xamante ni sama côté yaay. Eh, dañ nekk ñoo xam ne waa kër Cheikh Ahmadou Mar Seck donc euh, suñu suñu maam xutbu rabaan la Cheikh na Saad moo ko seexal def ko xutbu rabaan donc foofu lañ bokk daal donc li nga xamante ni suñu côté papa tamit ci hmm. làmb la séeréer dañu mooy loolu donc nag li nga xam ne moom la ñu moom dañ koy def mooy dañuy sellal di julli di woor hmm. waaye di ko teg ci yoon baax a baax hmm. mu ngi noonu nag ku wax koor wax diine ku wax koor wax li nga xamante ne mooy solidarité et partage ñu gis boo ñaa barki démb ñaa ci marbre du cœur gis ko loolu da nga rek wala tout le yaa ngi ci waaw ah, ci social lañ dëkk parce que boo dëkkee Pikine rek ci social ngay dëkk parce que gis nga ba ñu yàlla dimbalee ñu am fu ñu mën a dëkk dañoo ñëw dëkk suñu Pikine suñu Pikine demuñu fenn dëkk fa Pikine lañ ñëw dëkk dëkk boobu ñu dëkk Pikine wa dafa am lu mu wane rek wane nañu fi la ñuy yeewoo ndëbatuwuñ kenn laqatuwuñ kenn lu ñu am as néew bu dee dërëm ak ñaar dërëm ku fi ñëw rek ñu bokk ak yow donc social lañ dëkk koor gi tamit xam nga demoon nañu seeti képp kuy teg café fi Pikine dem fa jox la lu bokk lu ñu am yaa ngi dégg beneen bi mooy Malmi du Cœur ñëw nañ fii ñu ànd ak ñoom partagé yëkkati ay ay dons alimentaires jox ko ñi nga xamante ni ñooy néew di doole yi dimbali leen te lool lu ñuy rafetlu la mais ci lañ dëkk daal mhm. xaar ñu ba koor ñëw ñu koy def mhm. mu nekk lu rafet macha allah di ko ci encouragé bu baax moom doomu Pikine boobu avant ñuy dugg ci combat bi rek xam naa ne yàqamti nga ko mais ndànk rek Boy Niang numéro 2 la mooy sa passe-temps favori sa passe-temps favori sama mhm. su ma jógee entraînement maa ngi sama ne kër seetaan làmb moom tout le temps maa ngi seetaan làmb loolu bokk na sama passe-temps. Mhm. beneen mooy PlayStation gi nga play baa ni fi la nekk. Mhm. à part ñuy play beaucoup de récupération concentration. Mhm. nekk ci play wala ñu seetaan làmb loolu mooy suñu passe-temps. à part ban sport ngay pratiquer. à part bëgg naa football parce que moom laa doon njëkk a def. waaw dama doon football avant may def làmb. ah boxe tamit bëgg naa ko dama koy seetaan parce que loolu dama cee jaar quoi moo tax football naa boxe naa avant may def làmb nga bëgg a xeex mën xeex Boy Niang numéro 2 loxo bi ñaw na <laughs> fu mu dugg bu génnee bàyyi fa dara mënu ma xeex a waaye maa ngi jéem de maa ngi jàng de maa ngi jéem <laughs> loolu la demee mu ngi noonu Boy Niang numéro 2 li sa plat préféré man mhm. man damay man moom bari mu bañ de ci lekk moom bari mu bañ mais dina am loo xam te ne lii nga gën a bëgg bu ñu ko tegalee moom mooy loolu waaw man lépp laa coob man damay lek ceeb ceebu jën bëgg naa ceebu jën bu weex bu am suur ak bëgg yooyu noonu. ala ngéwél gi ah, laal ma caag waaw yooyu dafa yooyu yooyu bëgg naa ko waaw. mu ngi noonu Boy Niang numéro 2 ku nekk nit am nga loo xam te ni moom nga bëgg ci moom yow lan mooy li nga xam te ni jikko boo xam te bu nekkee ci nit rek nit ku koy bëgg ban jikko moo la a neex ci doomu aadama. dëggu waaw ah, moom da dëggu dëggu dafa baax ci nit booy ànd da ànd ak dëggu. Mhm. moom boo demee bay ànd ak booy wut benn compagnon de guerre da ngay wut ku dëgg ku sincère. Mhm. kooku moo la mën a gunge fu ne waaw. Mhm. ci jigéen ban qualité moo la gën a neex ci jigéen. jigéen mu yaatu mën a joxe ñam. Mhm. ñun moom boo nekkee ñun boo yaatuwul mënoo joxe ñam rek day metti boo nga yaatu soxol bi yaatu. nga mën a joxe ñam parfois sa néegu biir sax mafia bi dañ fay dugg nekk fooy yow toog ak yow. seeg ñoom waaye ñoom ak mbër bi ñoo bokk lépp donc il faut nga partager yaatu. mën a joxe ñam mooy bu lekk jotee nga bañ a jox mbëri bàyyi ko jox gaa bu ñu lekk. Mm-hmm. waaw loolu moom baax na jigéen waaw. junoon mën nga togg ban plat nga mën a togg. man ah man daa ma def mm-hmm. yaasa de mun naa ko. bu fekkee omelette de. yaasa moom mun nekkee France damay defar yaasa. poulet yi dama koy jël defar ko lakk ko. moo gën a yomb. xam nga defal soos noonu xam nga taggu sama ñànk sax riz blanc bi togg ko defal dóor parfois nii su ma kiiwul su ma loolu damay dem defal lool ñëw lekk parfois ma nekkee France damay defal lool omelette moom ñëpp a ko mën am na dafa yomb. moom moo di omelette rek la mën ak Mbaye Babacar. mayonnaise damay defal yaasu damay defal yaasu baax gars yi dóor bu baax. <laughs> ci noonu na nga nekk ci làmb ku xam xale bu gisee bër bu gisee làmb dina ne kii kat moom laa bëgg ba tax ma dugg ci làmb booy ñàkk kan mooy sa lutteur préféré ci làmb ji. waaw man xam ma dama judd ci këru mbër. Mhm. man sama ay papa mbër sama niyaay mbër mhm. sama ay papa yu ndaw sama xaritu papa yu ay mbër lañ mhm. dama judd fekk sama nijaay doon champion mag muy booñaa yaa na ko yàlla xare àjjana yaa ngi dégg fekkoo ma ci moom dara waaye tamit ma dégg ci moom lu bari bu bëreeg champion yëpp mm-hmm. bëreeg ay Mohamed Ali bëreeg ay Balla Gaye 1 bëreeg ñeneen ak ñeneen daal ay champion yu mag kooku tax na ñun ñëpp ñu bëgg bëree beneen mooy moo ko sama papa ñuy kóllëre lépp mm-hmm. sama papa tamit ma fekk ko ci kër gi mu mu muy muy bëre mm-hmm. donc man su ma bëggee làmb sama nijaay moo tax ak sama papa waaw tax ma gën a bëgg làmb mu ngi noonu fierté bi ci biir kër gi la ko doon am ay papa ku ci mel sama papa Mansour Diop sama mm-hmm. papa Pape Diop Basson mm-hmm. sama papa Paala sama papa bëri na bëri na mm-hmm. su ma lim sama papa duñu si jógee ñoom Boy Diouf bëri na bëri na bëri na sama ay papa yoo xamante ne ay mbër lañu woon ma la xoolee foo mu bëgg a doomu mbër jàngil bëri yàgg-yàgg des na la mës a ñam boo ñaan numéro deux ban relation nga am ak yeneen bëri jàmm ak salaam waaw jàmm am yeneen mbër mbër bu dëkk Pikine même bu dëkkul Pikine

gisoo ñu fi ñëwoon nii rek ñi nga gisoo ñu toog fii ay duru ngaakaay yooyu ñooñu ay xaritam lañ ñooy ànd. Mm-hmm. ay dégg mais ñu ñoo bokk Pikine. Mm-hmm. Amady sama sama frère la maanaam moom bokk nañu lu mat deux mois trois mois tëdd ci benn lal Italie comme daan ànd nañ voyage itali suñu premier voyage ñu ñëw. Mm-hmm. waaw jour bi ñuy njëkk dugg avion ñoo ko bokk donc boolu partagé nañ ko xam nga. ñu bokk ndey bokk bàyyi nekk ay kër ama papaam toog na yaayam toog sama papa toog. sama yaay toog waaw père Fallaye ne leen ama boo ñaa sa rakk la mhm. boo ama sa frère la jàppante leen ngeen bokk ndey bokk bàyyi seegi jàmm mhm. suñ papa Fallaye ñu ngi ñaan moom xare ko àjjana nekkatu fi waaye loolu wax la woon mhm. tamit ngi ci xel yi donc jàmm rek lañ a ñu koy dund barki démb daje nañu sa administration dañ mën a seeg jàmm ak salaam yéeneente jàmm. parce que moom dafa am lu may xeexal muy këram ak papaam lu mu def ci làmb man ma am lu may xeexal muy sama kër ak sama papa lu mu def ci làmb. donc ñun li ñu nekk di ñafe nii yëpp duñ fi fekk rek di ko jël la. suñu papa yi ñoo ko ñafe yàlla mayu leen ko ci làmb ñu dañuy ñëw di yeggale rek muy moom muy man mission bi ak beneen doomu mbër bu fi nekk. donc ku mel noonu ñun dañ koy ñaaral jàmm ñaaral ko mu am lu kawe njottam parce pour këram. pour sukkari këram pour sukkari turu papaam ak leneen leneen comme man ak keneen ak keneen comme doomu booy kayre wala doomu keneen ñun ñëpp suñu papa yi dañu ci làmb donc war dañu mën a am ci làmb dara donc nag wax dëgg yàlla su ma waxalee sama bopp ak koor gi sekkuñu dara jàmm ak salaam lañ sekk muy xoolee Pikine mbëri fi nekk yëpp jàmm laa sekk ñoom bu ñu waxtaanee dëgg ku ma gis sax nga ni da nga xaw a nekk ci problème sax damay organiser benn la ci loolu yàgg na yàlla dogal na sama ndam maak Sa Thiès jël naa sama drapeau ànd ak Ama dem yóbbu ko këram ànd ak Ama ñu ànd dem kër Eumeu Sène information fekk na fi gars yi mm-hmm. Eumeu Sène yi moog Lac de Guiers gis nga def naa benn manifestation mu ñëw ma wan ni ko kii suñu mag la suñu digganteeg moom de tey rek gën a tax mm-hmm. donc gestion yooyu su ma koy def pour wan ni ñoom ñëpp ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. donc supporters yi xamee ko noonu ñu ànd ak moo xamee ko noonu comme li may wax rek bërki démb ñoom turu ngaa dañ fi ñoom wax leen benn wax bu am solo man leen Pikine man leen erreur bu ñuy bu ñuy def fatal te ñu war ko moytu mm. mu naa mu ne ñu fexee damm tànk tànk seen da nga war a damm tànk booñaa wala nga bëgg booñaa pour damm tànk ama loolu erreur la diviser pour mieux régner xam nga erreur la parce que Pikine ñun rek ñoo fi am ay tête yoo xamante ni foo tuddee ñaari tur ci làmb wala ñett tudd leen mm-hmm. donc loolu dañ ko war a préserver téye ko mm-hmm. mais bu ñu xoolee mukk ba ñàkk loolu waaw parce que am na yeneen gox yu fi nekk yoo xam ñu ngi seen i ñu ngi leen di di leen kii donc Pikine ku ci nekk rek suñu moom dafa am lu mu bind sa jë mhm. man lu ñu bind jënam man munu ci dara mhm. suñu borom pare dem ku ne bind na la ak sa wërsëg nañu yéenante jàmm ñu ànd liggéey ku ci nekk liggéey sa côté suñu borom ñaanal ko jàmm ku ne yéene sa moom jàmm loolu da mooy lépp te moom mhm. loolu la ma yéene tamit loolu yaa ko yéene sedda yaakaar naa loolu leer na ci bopp ñëpp. ci noonu nag kii di amaa Balde am combat royal comme contre ki nga xam ne mooy Modou Lo. Mhm. xale ba ca Parcelles Assainies xam nga koy wax. waaw noonu la de combat am solo la combat am solo la te Ama doomu Pikine la ñu ngi koy ñaanal ndam waaw mooy loolu li ñu góor ñu góorgóorlu ñafe ko ba yegg fu mu yegg. war na ko góorgóorlu ñafe ko ba am li muy am. Mhm. parce que yàlla moo ko def. Mhm. donc affaire bi boo xoolee ñun lu ñu war a bëreel ci yoon muy moom muy man ñu mhm. ko waaye dañ nekk ci làmb jaayante nekk ay jàmbaar Pikine tamit dooreel ñu nekk suñu ginnaaw. moo tax ñu dem bay bëree ñoo xam ne suñu mag lañ ci làmb. waaye na ay xale lañu. ko ñaar suñu boom defar ko ndam. moom mi ngeek euh, suñu mag Jules Balde ak ñeneen ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ñu koy encadré te mi ngi entraîné loolu rek moo ci am solo li ci des moom incha allah ci jour boobu affaire Pikine la rek waaw ñu def ñun fan doon jaar rek ñun moom buñ boolewee koy jël incha allah <laughs> ci noonu nag Boy Niang numéro 2 bi nga duggee ci làmb mën naa na mën naa ne aussi yàggul nga nekk am nga ci bés bu ne bés la jaaxal ban combat moo la gën a marqué sa combat yëpp waaw naa ay combat yoo xam ne yu ma la nag comme combat bu ma a marqué mu suma combat Brise mhm. ma neex la combat ma la parce que Brise la woon ba koy jël mosul mhm. am defet te combat am yëpp presque ay kaaw la. mu nekk mbër bu coriace bu mën a bëre. làmb làmb monde làmb ñëpp tiitaloon ma et puis ma ñëw def exploit nag loolu nekk na combat mu marqué. Mhm. waaw. combat à part gën a marqué. à part brise de mer. Mhm. à premier combat maa ngi ko bëree Taïba Ndiaye. noo ko dundee. a nga war a jógee lu simple. dem arène. waaw bëre premier combat ñu naan day day dem bëre dóor. noo ko dundee sama premier mhm. <laughs> lu ma lu ma lu ma mooy dama ñëw ci stade bi ngi mu ànd ak gars ñu dugg si. Mhm. ñu dugg si ñu nekk ki tëgg làmb ji saa rombee ñu woo ko laaj kan yu bëre <laughs> saa bu rombee deux ñu woo ko. lu war <laughs> a loolu ñëw ko dina ñëw ñu gars bi ñëw ñu ne kër ngeen di bëreel. jour boobu ndeysaan Yaram Gueye moo ko indi. mu mhm. Modou Diouf Yaram Gueye ko indi muy gaan bu mat macha allah waaw gars yi nañu kii ngeen bëre ñu ne amul problème ñu dem ngem dañ ne combat bi deux dafa tànk bi ko mais jour boobu ñu ma àndaloon am ñu amuñu téere daanu rab mais dañoo daanu ay rab <laughs> ba ñu paree may kaañu ne yow kat nga mës a daanu rab mu ne noonu laa bu jee tax mais loolu la nañu nag mm. ñu bëree ko Tiwaawan maa ngi nuyu waa Tiwaawan waa Kuli foofu suma kër la di nuy ñëpp di ñaanal sama mag Cheikh Tidiane Fall suñu borom xare ko àjjana di nuy waa këram ak njabootam yëpp ñoom père Kare waa ka mm. maa ngi nuyu ñëpp waa Tiwaawan kon jàkka fépp kër xaal yi foofu moom xam nga sama ak suñu yaay ndey faama suñu borom xare ko àjjana bu baax foofu suma kër la quoi foofu moom foofu laa defee sama sama début yëpp mhm. te du ma leen fàtte quoi mukk incha allah mhm. boo ñaa amoo benn regret loo xamante ne nii boo ko xam bu ko defati mooy lan mhm. ma am a jàng ba moment bii nii waaw loolu moom regret naa ko bëggoon di dem école di jàngi amoon nga bopp bi ngay bàyyi waaw non a def terminal après fa laa bàyyi parce que sama làmb ji <laughs> gañe na affaire yi. millions yi ëpp na la doon mais nag maa képp kuy jeune. Mhm. waaw boo ci tollee mun nga def sport bu la neex mais nga bëri ko jàng parce que dafay neex ko def. mais nag euh, mu ci bàyyee le fait ma ko def terminal ma bàyyi ko parce que combat yi commencé woon na ñëw coow li yooyu. Mhm. mais loolu moom nekk na du ma regretté parce que bëggoon naa def bac ba dem université. Mhm. nekk mbër nga di dem université di di jàng di bëre. mais noonu la loolu moom regretté naa ko nag mhm. waaw. muy noonu dañuy daal di jub ci nga xam mooy daj dëpp gi. Mhm. combat contre Tapha Tine le géant du sa combat. waaw comme rek. et puis ñu ngi ñu ngi wàcc ak ak suñu staff bi mu école de Boy Niang ak suñu staff mooy comme ni nga ko gisee nii gis nga sànq mbër yëpp ngi fi. sama équipe bi ñu ngi ànd liggéey ensemble di entraîner di waaj combat yi. comme ni ñu amee habitude di koy waaj rek. combat bu ñu respecté la bu ñu fonk la waaye ñun moom combat jaaxaluñu combat combat rek lay doon. Boy Niang numéro 2 dama lay dagg ñu gis Boy Niang yëpp Tapha Tine sonal ko. signature ba Zowal nga ñëw mayoo ko dara jaxase signature bi yëpp nu fa demee noonu boo ñaar. non ñoom ñoo ma sonal ñoom ñoo ma giree xam ay suuf yooyu. non man <laughs> boo ñaar jàll ci ginnaaw caaxee nu fa demee noonu daw mystique bi wala dox nga ko jaar ci bunt bi. ah non nga pour mu neex moom jaar na ñu daje. affaire bi noonu la. ñëw jaxase affaire jaxase carte yëpp kenn comprendre. waaw ñëw non non moom mooy ci duggee rek ñëpp xam nañ boo ñaar moom damay yëngal làmb damay neexal làmb waaw man moom amateur li ñu bëgg dama koy def damay yëngal làmb mais di leen wax ni làmb la waaw làmb la combat boo xam te ñun bëgg nañ ko comme ñoom nuñ ko bëggee te ñun duñ leen may dara te ñaan ñu leen dara mais ñu si jiite ay violence ak yooyu waaw yenn boo yu muy àndal nañ xam loolu quoi jaru ay ñëw di ay yooyu yooyu jaru ko ay xëpp suuf ay xeex yooyu jaru làmb ji ci géew bi la te làmb ji mag tafaatin la ñoom ñëpp ku ci def loo ci def loo ci mënti def mbur jour baa da ngay taxaw fee rek xaar tafaatin mooy dugg ci géew bi mooy daje ak man booy ñaa abi génn sifflet di génn suñu diggante mënoo koo wax lu mu mënul mënoo def ci moom lu mu amul donc pour ñu xam loolu rek ñu dal quoi ñoom ñi gars yi ànd ak moom ñu dal xam ni te am na loo xam ne boo ci woo waa Pikine xam nga jarul xam nga kenn xamul fu muy jëm parce que am woon naar ci guuxum soow ñun moom xam nga Pikine leen dëkk banlieue bi xam nga judo syndicat fi yeroo fi xa fond na a undu a ay wagar am na loo xam ne jarul ñun ciy woo sax mhm. dañ ñëw ci jàmm rek ñu bëre ko ci jàmm xam nga suñu boom defal ñu ndam mu jeex est nekkul jàpp ñu ne Boy Niang daa tàmbali sëqatal nit boo ñëwee mu indi la giitangaas est-ce que fekk su la sama nit waaw mais man du ma indee giitangaas tamit du ma indi violence ku xam boo ñaam du indi mm-hmm. te jarul ñuy dugg ci gars yi xam nga Pikine booy bëreeg ñoom nga bëgg leen indil woo leen mm-hmm. mm-hmm. nañ def flag fight rek ñu ñëw bu neexal mais buñ indi violence te loolu moo dama leen koy teer wa ñu teer ko ñun macha dañu am ginnaaw am ñuy àndal te booy duñu recruter ci dara waaw donc nag comme demee na noonu ñoom nañ xam fi ñu taxawee ñu ñu xam fi ñuy taxawee làmb moo ñu boole nañ ñëw bëre neexal làmb ji jaay làmb ji ñu dundal may dara te ñaam ñu leen dara waaw ñu bëre ko ci jàmm ak saam suñu boom defal ñu ndam ku nekk jug ñi bi mu jeex Tapha Tine jàpp làmb ji wax rek nga ci am wax rek comme ni nee na wax rek nee na wax nga ci am après arbitre bu wàccee xam ne lépp dëgg la noonu la demee Tapha Tine xam na Boy Niang comme ni ma ko xamee man du ma mbër bu man du man man <laughs> man du <laughs> du ma mbër bu ñuy kiiree man <laughs> ñoom xamante nañ ñun mbër yëpp xamante nañ hmm. boo ñaa mun nga nekk ci digg géew bi waxu lu ne war nga ni duma morom ma war nga ni kii ba arbitre sifflé ma def ko lu métti hmm. mais ba arbitre sifflé maa yow suñu hmm. maa xeex daa xuñu ma bëri ëpp ñu ma doole te métier bi mooy loolu dama ko dama gënuñu ma koo bëgg foofu te gënuñu ma koo mën tamit dama ko tarbi yu jàng ko loolu ji combat bi xeex wala bëre non lépp Tapha Tine ku ko xam-xam ne xeexkat la noo Tapha Tine foofu ñu xeex maa mun soogu bëre waaw li neex ci laaw ji mooy dañ ne tafaatin boo ñaar bu xeex ak tafaatin dootu ko def. Mhm. ilaa yomi diin loolu moo neex ci làmb ji te maa moom dañ dañ weccoo xeex. ñeme nga loolu. yàlla xam na ne dañ weccoo ak koor gi nañ weccoo xeex te bu ñu weccoo xeex amateur ñu ngi ibbi seen bët nañ gis am loo xam jàll ñu ko ci wax dafa mën a xeex. tafaat mhm. ni xeexkat la dafa mën a xeex man moom boo ñaar man ak tafaatin abi na suuf la ñu xeex. ñeme nga loolu nañ xam kan moo mën a xeex. tafaatin. barke Diém Moudia la jàpp kii di Bombardier da koo dóor ba arbitre bi nangu ko ci loxo. booy ñaa nga ne yow ñeme nga taxaw xeex ak ki nga xam ne mooy. Tapha ñu ngi koy nuyu suñu grand la waaye nag bokkuñu bokkuñu style bagaar bokkuñu ni ñuy waaw man waaw dama jàng xam fu dóor bu baax xam naa ni ñuy dóoree te su ma la bëggee dóor di la dóor fu ma la bëgg a boo xoolee boo saane sama combat mujj xam naa fu may dóor bu baax mhm. te buñu tàkkalee heure bu ma neex dinaa su ma bëggee dóor su ma la bëggee dóor dinaa la xam naa fu may dóor bu baax mbaa doo encaissé rek. waaw bu ab waaw xeex kay bañ ma encaissé waaye mu la bëggee dóor naa la dóor fi mu lay dóor te ne lu am lu bari lu mu jóge ci yow waaw donc nag moom xeexkat la ok amul problème léegi làmb nañ nañu soufflé maag tabaati ñu xeecoo xeex. ngeen xeex waaw ñu weccoo xeex mu jox ma ma jox ñu joxante soo waa amateur nañ nañ wax leneen. incha allah laa ilaaha illallaah loolu damay ragal leneen leneen daal ciy judd. ca fañ jëm nag mooy li nga xam ne moom la ñëpp di xaar ko ko dégg rek loxo dar gémmiñ Boy Niang numéro de Balla Gaye 2 Religion de Guédiawaye mu daal di taxaw ñëpp ne waa xanaa booy Niang mi day xaru mu ngi am tafaatin la géant du bool pareeguñ ci loolu mu daf jël Balla Gaye Boy Niang yow ban fit moo la may daal di jàpp dajale ñaari champion signé seen contrat toog di xool ñibbi si Pikine nag waa da wax ne instant yi avant loolu sax avant may dugg ci kooku sax man li ma di bàyyi xel sama supporter di ko bàyyi xel caap caap coppaatul yëpp di ko bàyyi xel muy sama combat Tapha Tine il faut ñu wax ci combat boole sax mais combat bi ñu ñor dëgg nekk suñu combat ñu ñu mm-hmm. gën a ñor. Mm-hmm. bu ñu sañoon sax duñu wax ci keneen. Mm-hmm. parce que ndox mënu jéggi pax. comme naan nga dañu am combat bu am solo boo xam ne mi nekk suñu karam dégg nañ nag ku nekk di wax mais gars yi nañu ànd ak dal ñun ay sportif la xam nañ li def bu baax. ay xale lañ li ñu des ci làmb bariwuñu dawuñu bay daanu dañu xam li ñuy def am fu ñu teg suñu tànk. nañ def nànk rek. Mm. suñu combat tafaati mi ngi ci karam ñu ngi koy waaj ak ñu ngi ko war a waajal. soreetu ñu ngi ñaan Pape Thialé suñu boom defar ko jàmm. maa ngi koy mm. nuyu de passage. Mm-hmm. promoteur suñu frère suñu lépp la. Mm-hmm. li ngay wax nii ay Balla Gaye su ma demee sax ba combat boobu taxaw Thialé moo tax. Mm-hmm. parce que dama nekk ci contrat am am na nu mu doon defee man du ma du ma bëree naan mun na bañ loolu mais dama waxtaan ak moom mu wax ak ma en tant que gentleman parce que ñu yëpp ay frère lañ mu nangul ma ko ma am pour signer ma mu régulariser ko a gaaw mu am date jàmm parce que combat bu neex la dëgg boo ñaan bu ko daak parce que mu ko mu ko jotee loolu koy mbaragee ma ne ko da ngaa tëgg combat am dara daak ko mhm. wala tafaatin champion de guerrier day bëre day xeex te man tamit duma ko may dara comprendre combat bu neex la yeneen yëpp bu ci amee moom moo ko waral moom moo ma jox accord ma dem signé beneen contrat donc nag comme ni ñu ko mm-hmm. ak Boy Niang ñun tafaatin mooy suñu combat ci lañ nekk di ko waaj. après nag bu jeexee incha allah ak jàmm suñu boom dafa ñu ndam ñu soog a xool keneen soog a lijjanti keneen. entre parenthèse rek da nga tontu ñu daal di ñëw ci li nga mooy tafaatin jeexale fa suñu entre parenthèse am nañu ñoo xam seen supporter Boy Niang xam il se demande pourquoi Boy Niang jël ñaari combat yëpp. waaw parce xale laa dama toll ci bëre. et ñu di wax ni ñoo benn combat ci année bi dafa métteeg yooyu ñu jékki-jékki jox ñaari combat ñeneen ñi wax kon luñ bëgg ñu war nañ signé cinq combat sax ko ñu ngi naan waaye léegi pourquoi lamb bu ñu see deux combats rek muy fin du loolu dara. lamb la lu muy loolu dafay yombal mbiri lu muy yombalee mbir mooy parce que dañuy xëy di entraîner. Mm-hmm. combat ba dafay jeex deux jours da ngay dangay da ngay demaat kon ne entraînement sa métier la amul ay xaar amul taxaw. waaw war nañoo signé 4 ba 5 combats ñu nekk en vue gars yi di ko waaj di pare di xeex di ñëwaat di di waajaat loolu amul problème loolu dara sportif lañ moo gën ñu pare toog fii xaar mooy loolu ba pare nag. mu nekk combat yoo xamante neex la xam nga yi bëggoon nañ ko amateur yi bëggoon nañ ko Sénégal bëggoon nañ ko loolu moo tax sax ñu teel ko taxawal nii ñu nekk ci contrat ñun ñëpp parce que dama nekk loo xam ne amateur yi dañ ko bëgg rek a moom mm-hmm. mm-hmm. bëre mm-hmm. naa ak la dëgg donc mën naa bëreeg ñoom ñëpp loolu dara daan Tapha Tine est-ce que lay yóbbu Hmm? daan tafaatin est-ce que xam nga fi mu lay yóbbu. waaw bu baax moo tax man la ñun suñu combat tafaatin la ñu ñëpp muy càppaaculi muy booñaa muy samay fan sumay xarit combat bi ñu am di ko waaj muy suñu combat ak tafaatin la mhm. moom la ñuy waaj waaw leneen nag ñuy ñëw gis nañ ay wax ci beneen côté mais ñoon dañ leen écho nañ xaar nañ ah. xaar waaw am na yoo xam ne touche bi ba ci kanam waaw parce que dégg naa ñuy sànni ay kàddoog yooyu di sànni ay xeer ñoom nañ xaar ñun taragul leen nan leen écho tuuti waaw am na yoo xam moom boo ci woo boo ñaa moom da ngay woo naa su góoxul soof nañ xaar rek mhm. tafaatin lañuy liggéenti suñu borom dafa ñu ndam foofu bu ñu pare ñu jublu ci keneen incha allah yaa tafaatin ñu gis préparation mystique mystique mhm. tafaatin bu ñëwee indi mystique boo ñaa ñëw indi mystique combat dañ ko teg ci mystique wala non ñu ñu mystique de non laa mujj keroog man ay man xorom nañoo ba ma sonn ah, signature sax signature signature non yow waxal loo waxal wax ji rek signature la dañ maa xorom ba ma sonn non waxal wax ji rek ngeen jël làmb dañ ko teg ci mystique wala waxal wax ji rek eggal ci wax ji rek neel Tapha Tine moo fa ñëw xorom stade bi yëpp ñëpp mu xorom leen <laughs> mooy loolu mais affaire du foofu làmb nag moom dafa baaxu mystique amul problème hmm. yaa ngi mais ñun ay xale lañu luñ gën a yitteel ci làmb ji mooy le fait que ñu pare physiquement entraîné yaa ngi dégg ànd ak mbokk ànd ak suñuy course ànd ak ñi ñu war a àndal waaj ba par hmm. bu ñu paree moom loolu suñu waajur sax bu ñu tiflee sax doy na loolu moo amul benn problème parce que ay xale lañ waaw te ñu suñu waajur ñu ngi sant yàlla lu ñu am ñu ngi ko bokk ak ñoom ragaluñ dara incha allah. ngeen war a bëri arène nationale. Mhm. sa bopp koñ. Mhm. mën ngaa sangu ba pare añ ba suur nan ataay dox ñëw. Mhm. sa nga daal di fay lanc contre nga xam te ne mooy Lac de Guiers numéro bëri jiwaat. du am benn pression ci yow. waaw mais sant yàlla mais xam nga contre Lac de Guiers dañuy dégg gars yi nga wax dañ koo comme nan parce que man combat boobu ñaaxuma ko ci stade bi après lañ def recours ma ñaax ko. donc ci stade bi dañ ci stade bi dañ ni match nul ñu ñibbi ak match nul mhm. léegi nag après moom mu def recours ñu dox ko victoire mais loolu yi amul problème mi ngi ci ginnaaw comprendre nga mhm. li am solo mooy comme ni ko waxee sama gox la ñuy mhm. te miin nañ ko arène nationale bi dem nañ fa suñ gox la ñuy bëree te xam nañ ko bu baax donc dañuy waaj rek ak su ay mbokk ak cappaaculi yëpp xam ñu dañuy dox nii génn syndicat bi la ñuy jaar rek wàcc. mën ngeen añu fa naan ataaya jël <laughs> seen temps daawul ndànk ñëw. non loolu bul sol bul sol ñun moom euh, stade bi jege nañu moom dañuy dalal ñëpp jàmm rek di leen wax ne ñoom tamit ñu ngi leen dalal jàmm. Mm-hmm. parce que sport la daf fel palel te ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. waaye comme li ma lay wax rek am na yoo xamante ne buñ ko jéem sax duñ ci woo. te mm-hmm. ci woo pikinois yi loolu moom buñ ko jéem sax xam nga nañu nañu ñëw rek ci làmb am na loo xam ne bu nekkul ci yow nga jékki-jékki bu ko forcé du dem mm-hmm, donc ñoon kenn mosu leen xamee ñu ñëw làmb di indi ay violence di indi ay jam di indi ay affaire jaru ko yaa ngi ne te buñ ci woowee ëllëg maanaam ku xam Pikine xam nga nu mu fi demee donc nag jaruñu ko nañ ñëw rek ñu bëri ci fair play kaf ak ree ñu gunge seen mbër ñii tamit gunge seen mbër ñu kaf ak ree ñu ñëw bëre bu at bu abi nga bàyyi ñaari mbëri ci géew ñu bëre suñ moom def jàmm may ñu ndam ñu ñibbi mu jeex mm-hmm. am na loo xam bu ñu ko jéem sax di ko dugal si diggante bi le fait que rancune boobu amu fi wala ay gën ay jam di indaale ay jam ci ñoo mm-hmm. jaru ko mm-hmm. parce que man xam naa ñu ma àndal xam naa tamit fu ma jugee te na loo xam ne boo ci woowee booy rek bu la ci wuysoo leneen loo xam ne jaru ko foofu rek laay lancer dañoo jàpp ne waa Pikine booy bëreek ñoom dañuy dox sa kaw maayen hmm. terroriser la. moo tax jàpp moo dañuy jéem a njëkkantu. Ah, dox dox yow it sa kaw maayen ah, fekk la sëmmani mais man booy Pikine laa man waga laa booy Pikine laa comme ni waxee man mënoo dox sama maayen hmm. parce dama judd gis lu ne dund ak booy lu ne dund façon nit bu ne ñu dëkk ñu nag ñu ñuy àndal ñu nag ñoom ñoo dëkk te xamante nañu baax hmm. donc am na loo xam ne boo ko bëggee def booy ñaa mënoo ko def mais loolu indi rek mooy da indi sa mbër nga ko am ko ci beneen droit mais am na loo xam ne bu a dund boo ko dundee la ñun rek comme ni ñuy wax fu muy jëm moom ndox du daal parce que ñun moom du ragaluñu loolu te booy ñu ànd tamit ragaluñu loolu waaw la demee ñoom nañ ñëw ñu bëri ci bis bi bis bi nag da nga war a neexal jaay waaw parce que bis bu gars yi di xaar du bis bu yomb sax waaw non mënul yomb boo ñaa boo xamee làmb xam ne mënut a yomb sax a yonn man ma ñaanu ma ko dara te du ma ko may dara waaw te dañuy xeex dañuy bëri incha ñaanu la dara. ñaanu ma ko dara. Mm. te du ma ko may dara. loolu loolu leer na Boy Niang numéro 2 la ngay bëri arène national mm-hmm. ku xam Boy Niang xam ne bu jógee pikin ñëpp jóg. Mm-hmm. bu jógee du ma ne sax Pikine mbooloo yëpp topp ko. Mm-hmm. ndax macha allah ginnaaw gi fees na dellu kaar macha allah yaa ngi pare di sensibiliser say supporters. ndax violence bi nekk làmb gis nañ ko. bu mbër ba bëree bu daanee hmm. supporter am yi yàq hmm. bu daanoo supporter ba yàq ba tax CNG jël ci ay décision yoo xam ne yu la te ñaanu yàlla mu dal beneen mbër hmm. est-ce que yaa ngi pare loolu kii say supporter waxtaan ak ñoom bu baax a baax loolu mooy yoon sax ñun moom sensibilisation bi yàlla dañ cee yàgg balaa yi yëpp di am sax parce que ci benn côté dañu faroon ambassadeur pour non violence donc mhm. loolu dañ ci mës a nekk mhm. dañ ci yàgg loolu moom dañ ci mës dëkk comme daan di sensibiliser sensibilisation bi moo tax sax ma wax li ma wax nii le fait am na loo xam ne ñoom bu ñu ci jéem a woo parce que Pire dëkk te ñooy organiser làmb te suñu koñ lañuy bëree mhm. donc am na loo xam ne bu ñu ci jéem a woo sax nañ ñëw ñu bëree loolu moo koy wax tamit sensibilisation moo tax beneen côté bi mooy stade moom xam nga ne boo ñaa buy bëree ba mu fees loolu dañ koy duy ba mu fees del classico lay doon bul sonn dañ koy duy ba mu fees doo waa Bawol ñu daal dugg non <laughs> loolu am na ñuy yéexee duñ dugg maa ngi dégg maa ngi dégg tafaatin di wax rek naan ay Bawol Bawol càppaku lamba ak yooyu moom bu mu fàtte ni ma gënu maa doon Bawol Bawol man Samba laa dëkk Samba laa dëkk samay maam yi foofu waaw mais loolu man sama famille Jurbel lañ dëkk mhm. donc nag bu ne Bawol dañuy wax région de Diourbel mooy Bawol. waaw après kuy ñëw ñëw. waaw noonu la kon Réfane Thiès la gën a jege sax. donc moom bu a génne la gën a jege. <laughs> mooy loolu bu ne Bawol boo ne capitale Bawol Diourbel ngay wax te man Diourbel laa dëkk. samay mbokk yi foofu Sambe. Sambe maa ngi leen nuyu waa Sambe école waa Sambe. Pël waa Sambe Tokoseen man foofu laa dëkk foofu mooy suma dëkk donc gënumaa doon bawol bawol suma ay nijaay suma ay papa yëpp ay bawol bawol lañ mhm. donc laan pak lambaay bi ba ñi fi ñëwoon ki fi toogal léegi ngañ kooku muy bawol pak lambaay lay liggéeyee mhm. sama booy ñoom saacis numéro 2 yëpp fa lañuy liggéey donc gënumaa gënumaa nekk bawol bawol mhm. loolu moom na ko génn ay man bawol laa dëkk yooyu ñu ñëpp bawol lañ def non yàlla xam na ko nag nekku dama koy wax ni moom xam na sax ëppale ma bawol sama ay maama léegi pacte la def ku daan la génne sa morom bawal non duñ génne bawal dañuy bokk ah. bawal non ku daan def kay hmm. nit ñaa moo leen bokk bawal non kon moom du génne day métti parce que moom su ma ko génnee bawal bu ñëwee tagaatu <laughs> ñu ngi ñaan jàmm nag ñu yegg ci jour ba ak jàmm incha allah hmm. di wax Pape Thialis nag di ko ñaanal jàmm di ko wax nag sa waay mu gaaw régulage affaire yi nag instant yi gars yi gars yi ñu ngi xaar combat bi ñëpp ñu yi nekk extérieur ñu ngi xaar bu ñu jàpp dal bi ñu fixé seen biyeeg yëpp mhm. ñoo mu gaaw régulariser parce que yaram yi tàng na de mhm. te tafaatin boo ñaa ko tëggee amul mhm. te suñu bu bëgg liggéey la Pape Thialis ñu ngi koy ñaanal jàmm parce que ba sama combat ak Sa Thiès njëkkee ñu ngi ne combat boobu di taxaw parce que yooyu mu ñëw tëgg ko fay ñu cachet bu am doole boo xam ne mosuñu ko fayeeko donc nag bu ñëwee ba léegi nag sama combat ak Lac de Guiers mu tëgg ma commencé ko tëgg di ko démarché keneen ñëw tëgg ko mu moo ko def Charles ñu koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sponsor yi ñëw nag parce que combat mm-hmm. yëpp ñëw wuy si ko suñ boom defal ko jàmm bu baax ñu ngi yëpp parce que combat dafa ak ba ak ak Boy Niang dafa am enjeu mais beneen enjeu dafa ñëw teguwaat ci mm-hmm. ko dégg naa wax yëpp <laughs> naa wax yëpp dégg naa wax yëpp dafa yab Tapha Tine yabu ko dafa am fu mu ko teg ak yëpp mais sport la dañ ci nekk di liggéey mm-hmm. Tapha mii bu ko gisoon day dem bëre parce que ñëpp ay sportif lañ mm-hmm. comprendre nga teewul ñu xam combat bi fu ko toll ak fi mu ñuy yóbbu ak lan lañu war def pour daan loolu yëpp xam nañ ko de parce que ay xale lañ te xom booy ñaa xam ni moom ak estafam duñ dem dara ci hasard dañuy dem yëpp xam nañ ko dañ koy teg ci yoon xam nañ fi jëm bay borom xel lan dañuy xalaat xam nañ fi teg suñu tànk te ay xale lañ mhm. noonu la maa ngi leen remercier nag yéen waa Leewtoo gis ngeen seen pañe ndog mi ana madame ana madame madame mi fi. capaa curi bu jigéen mi ngi nii bu jeexee jeex na. jeexee jeex na waaw noonu la demee. un wala euh, benn benn benn benn rek. kii tapet la de yow moom daa nekk un ne day remplacer quatre de. maanaam dafa bëri doole puissance quatre la. puissance quatre dafa tàng mooy loolu de kenn. daa daw <laughs> maa ngi koy bëggee di ko ñaanal jàmm di nuyu ko nuyu famille yëpp waa Tiwaawan maa leen di ziar bu baax. Mhm. waaw waa HLM maa ngi leen nuyu di sama mag Pape Diop mi nga xam ne mi ngi fi woon. mu ngi noonu ne naa la jox pañe bi pañe Leewtoo la ah. waaw <laughs> pañe bi kay. Eh, attends pañe bi Serifa laa koy jox. Mbadou. waaw Serifa laa koy noonu la demee kontaan nañu ci baax madame Nia. waaw noon la deme ah. madame gaa indil na la pañe de bu jeexee rek jeex na bagage yu baax a ngi ci nag ah. production. waaw noonu la demee maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nag. balaa ngay tëj balaa ngay tëj. kaasu kaasu fonde bi wala kopp fonde bi. fonde mboq la wala fonde dugub wala. non fonde bi ça dépend ci nit ñi rek. ah ça dépend ci adversaire yi ñuy bëree xanaa fonde du fonde rek. am na ñoo xam ne seen fonde foofu ñu xorom ko. waaw foofu ñu xorom ko jox leen ko da ngay gagné di naan sax mais di naan. tafaatin bi nag. waaw am na ñoo xam ne ñu ngi wax tafaatin moom dañ koy jox kaasam Tafaatine incha allah dañ koy xoromal parce que gis naa léegi ñu ngi commencé di ci bool li ci bokkul. nee nañ fond kaas dañ koy jël jàpp la yow naa booy mais ay mbocc ah. xaar rek. booy noonu di wax noonu nee nañu xaar rek affaire yi moom bu gis benn combat nga ci wut bër di wax ay affaire yeeg yooyu jaru ko waaw ñoon du ñoo moom nañu xaar rek. man ak Tafaatine la am affaire am naa pour wax moom am na pour wax ma parce que ñoo signé contrat. Mm-hmm. mais am na booy xam ne du ma ñoom Eh, man xare laa ñoo seen seen morom laa laa su ma demee ba tool si fii nii dama ñafe mm-hmm. donc nañ def ni man rek loolu moo gën détail mm-hmm. li ci am beneen affaire bi mooy tafaatin foofu mu jël kaasam mm. waaw foofu mu naan kaasam tafaatin foofu mu jox ko kaas foo dem defal ko ci defal ko ci xorom parce que xam moom comme day wax. <laughs> xorom bi yow métti am xorom moo xam ne dañ la koy sol. day métti mais da nga koy naan da ngay gàññi mais koy naan foofu ñu jox ko incha allah noonu la demee maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu sama mag Pape Diop mi toog di ko ziar. Mm. doomu Mansour Diop moom sama frère la ñoo bokk benn papa nuyu sama papa Mansour Diop muy Italie di ko ñaanal jàmm di ko wax ne mi ngi waaj moom combat yi day ñëw incha allah. Mhm. Abdou Aziz Abdou Aziz bi bu civilisé ma mag sama xarit sama géwél sama xarit sama sama doom nday maa ngi koy nuyu fu ma fekk jàppale ma sagal ma waaw sama grand la sama lépp la maa ngi koy nuyu di nuyu Pa Assec suñu grand suñu lépp nekk France. di nuyu sama gaay yi sama am di jàmb yi di nuyu gaay yëpp waaw mafia bi ñu ngi leen nuyu cappaaculi ñoom Abdou moo nekk nekk bi bàyyi paate waaw jeune de gaay waaw gaaw grand daaw ñu ngi koy bëggee Espagne ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko bëggee waaw nimsaat bi nag ñu ngi koy waaj xam nga ñun taal bi Cheikh na Cheikh Saad bu lañ mhm. waaw ñun waa kër Cheikh na Cheikh lañ bokk mhm. donc ñu ngi waaj nimsaat ñun bu koy jotee dañuy dem nimsaat fa lañuy jullee dem saara xii na ziar na Cheikh Saad fu ñu tëdd foofu mhm. donc ñun chaque korité fa ñuy dem damay dem ànd ak sama écrit yi ànd ak sama am di jàmm bis jël ñëpp fa lañ korité ànd ak sama waa écrit yi xalif général muy Cheikh Ayaw wulu Cheikh Taari bu yo ñu ñoo yor këram ñoo yor sécurité am ñoo yor ñooy defar kër gi yëpp ñooy defar la fa ne yëpp ñoo ko yor mhm. ñu ngi koy ñaan suñ borom guddal fan mi wax ni taalibe xaar yi yëpp ñu waaj Nimzaat bi mhm. ñu ñëpp ñu dem ziar Cheikh na Sall parce que namb nañ ko mhm. année bi passé amul parce que covid bee taxoon waaw mbas bee taxoon mais année bi ñu ngi sant euh, gouvernement Mauritanie bi ñoom yombal nañu ñu lépp gouvernement Sénégal aussi jàpp ci xalifa bi ñëw fii dox lépp incha allah dañoo war a dem ci jàmm dañ demee dañuy def foofu test Covid. Mhm. mais test Covid bi ñuy def noonu test Covid rapide la te kii bi ñoo ko yor quoi euh, gouvernement Mauritanie bi ñoo ko géré. Mhm. donc du am benn problème képp ku bëgg a dem. Mhm. di taal bi Cheikh na nga dem Nimzaat xam ni du am benn problème di nga dem ci jàmm ñëw ci nag shérif yëpp ñuy jàppale parce que ñun foofu la ñu bokk. kullu shérif waa kër Cheikh yi waa kër Cheikh na Wuldu Maamini yi waa kër ñu ñaan ñëpp ñu ñaanal suñ combat yi ñu jëmal muy tafaatin ak bu beneen bi Balla Gaye suñ boom dafa ñu ci ndam bu baax a baax a baax ñu ngi sant ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu waa Tiwaawan bu baax waaw maa leen nuyu bu baax di nuyu Cheikh Mohamed suma xarit doomu xarit général Tiwaawan bi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Mansour suma xarit di nuyu waa Touba nag waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fallou maa ngi leen di nuyu bu baax di nuy ziar di nuyu xalifa bi di ko ñaan suñ boom guddal fanam bu baax kilifa aada yëpp baabuñ kenn parce que ñun fépp lañ bokk te ñëpp ñu ñaanal. Mhm. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñu fi teew nag gis nga waa kër Amaay maa leen nuyu ñoom Doudou Ngaka ak mhm. yi mhm. ak sama course yi papa yi ñëpp. su ma limee sama fan sa kërëb bi gis naa leen fi maa leen di gërëm di leen ziar ak ñi fi nekkoon yëpp sama yaay yi ñu sonn ci togg yi. waaw suma suma suma rakku jabar yi. maa leen nuyu Aïda xam di nuyu ñëpp di sant ñëpp rek sama yaay di ko nuyu ak sama papa di leen ñaanal jàmm. di leen ñaanal ñu fekk suma njariñ yëpp di nuyu fi ma dëkk muy cité pépinière ak waa koñ bi yëpp ak mafia bi yëpp jënd maa ngi béyee gaa yëpp waaw di leen nuyu mbëri tamit gis nga ñoom Sambala grand Manick waaw booy booy mbër yi fi nekkoon yëpp ñoom macha allah gars yi mbër yi fi nekkoon yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant. di nuyu yëpp waaw Sathiès numéro 2 bi ñu daan Sathiès foo fi mi fi parce que loolu moom du ñàkk géej waaye sax am na ay booy ñaa comme naan nga waaw ba may bëri ak Sathiès moom mi ngi ci écrit bi yàlla xam na ko mais nag man ak moom dañu bokk loo xam ne bokkul saa ci xam naa am lu ko neex ci moom mu tuddee ko boppam loolu mooy sport ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay mm-hmm. te ba ñuy daan ba dañoo war a defal mu naat mais dara warul nakari mm-hmm. incha allah waaw di nuyu bàcc asalam sama grand suma lépp waaw comme ni koy wax bàcc waaw moom moom moom mbër bi mook Adama Ndiaye ñoo ñoo moom mbër bi ñooñu ba muy zéro lañ nekk ci mbër bi su ma ñëw stade bëri ay premier grand combat dañu stade di solo ñu naan boo ñaa mi ngi solo naaxet ñoo ñoo doon dem di jënd ay gentleman la waaw bâc HLM ay gentleman yoo xam dañoo mën a solo day dem jënd ma lu tàng indil ma ma sol waaw bilaay bàyyi paate sama gars yi ñoo ngi sama mafia lañ ko koy mbër bi parce la mm-hmm. waaw ay Adama Ndiaye grand yëpp waaw bëgg nañ ñëpp sant ñëpp mm-hmm. waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu jeexee rek jeex na waaw noonu la demee waaw waa supporter yi maa leen bëgg rek waaw mafia bi da nga naan capaaculi yi ah, képp koo xam ne da nga supporter Boy Niang capaaculi nga donc da nga naan ana capaaculi yi ñun la ñu ngi nii ñoom moom bu jeexee rek jeex na ñoom ragaluñ loolu xam nga ni yéen wax rek ñu ngi waaj suñu combat nag yéen wax ne bu leen ci nekk coori bu mu bari mm-hmm. ñun dañu am combat bu ñuy waaj muy suñu diggante ak Tapha mm-hmm. nañ ko ñaan suñu boom defal ñu ndam mm-hmm. bu ñu paree nag ku ñu tontu ñu soog la tontu comprendre nga noonu la demee ñu ngi ñaan ñëpp jàmm nag incha allah ñu ngi leen di bu jeexee rek jee na jaajëf mu bu jeexee rek jeex na ah Boy Niang numéro 2 moo wax loolu càppaa coole bi doomu Pikine doomu Dégol ki nga xamante nii bu jógee Pikine ñëpp jóg bu jógee stade fees dell bu sañsee mu neex su bàkkoo mu neex su bëree supporter yi ñëpp kontaan kooku mooy Boy Niang numéro de di ko jaajëfal di kontaan ci moom bu baax a baax bëgg nañ ci moom càppaa coole mu ngi noonu waaw ñor taab bi moo gën gësam de dafa leer ñor taab yi moo gën gësam <laughs> berna yi bëri na neex na macha allah di jaajëfal waa kër gi ñu fekk ñëpp car ba cat mënuñoo lim mention spéciale à madame nee na loo ko wax mën na 4 ans. non madame mooy loolu puissance 4 la. puissance 4 mu ngi noonu maa ngi ko jaajëfal maa ngi ko jaajëfal bu baax di ko béggee di béggee waa kër gi cat ba cat di béggee sama équipe technique bi Mansour Fall moomoo loo dawal la bëgguma ndeysaan sama réalisateur bi kontaan naa ci yow trop di béggee équipe technique Leewtoo TV ñëpp waa revue bi kontaan nañ ci yow Bamba borom ruube bi matu Aïda. waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyu suma fans club bi dafa am fans club Thiapathiouli national am fans club Thiapathiouli international. Mm. ñooñu foo ma nuyu leen bëgg nañ parce dañoo nekk seen groupe bi di gisee pour ki dem la ñu doon def ay réunion di xool nan def te ñooñu il faut ma remercier muy càppaaculi national ak international maa leen bëgg bu baax képp kuy fans club Boy Niang war ngay fansam nekk international dañu am groupe ñoom ñoom ñu ngi si jàpp ñu ne fi tamit national bi ñoom ñoo fi ñëwoon sànq président bi moo fi ñëwoon sànq maa leen gërëm di leen sant bu waaw ah, bu fekkee leneen moo am nag moom comme leneen mën leneen mën naa amaat rek mais ñu ngi ñaan nag mu ñu teel ku bëre nag parce que mm-hmm. affaire bi yàgg na nag mm-hmm. tamit mm-hmm. nañ ko téere bëre mu jeex xam nga ñun ñu dem xool leneen Pape Thialy tamit mën a def leneen parce que moom am na yeneen yu mu bëgg a def ci làmb insha allah mu ngi noonu di leen béggee ca càppaacoli national ak càppaacoli international ñëpp ñu ngi leen di béggee ah supporter boo ñaay ku mu ko décoré man puissance la yow moom naa ko yow puissance huit na dara du dugg booyi sax yéen ñi doon rang taxaw leen man maa fi nekk ci buntu maa koy défendre dégg nga macha allah génneel ma ko génne génne génne tera tera nga àdduna bët ah chéri chéri boo ñaani wéru de dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga mu ngi nii macha allah kontaan naa ci moom lool lool lool naan ko merci beaucoup dal comme ni ma ko waxee ah sama équipe technique bi ñëpp laay bégee mhm. ndogu ak la woon ak Boy Niang numéro 2 nee naa ne champion kulu fadri koo xamante ni kenn tudd làmb te doo ko tudd kontaan naa ci moom bég naa ci moom bég ci waa bi sama géwél bu ñaaw bi soo wéree ñu ngi xuloo mais kontaan naa ci moom lool ah Aziz <laughs> bég naa ci yow de Leewtoo TV la woon ak Ndeye Mbacke Diop Mansour Fall moom moo maa du mën a ñàkk noonu la ñuy def ba beneen yoon ak beneen champion incha allah jaajëf